mbokk yi arbitre bi sifflé na combat baa ngi noonu ci diggi géew bi Caatu Lamine Gueye moo ñëwoon ginnaaw Reug Reug bu bees sifflé na moom la ñu jàkkaar lool Reug Reug bu rëbës ak Caatu Lamine Gueye moo ngi lay waatoo moo ñuul ngem moo ngemu lu ñuul li ah Reug tooñ na ko léegi daw na eh, jàppante ah sànni na ko waaye Caatu Lamine Gueye lu muy def nii Caatu Lamine Gueye bal Lamine Gueye la ci. rëg rëg sànni na léegi. Caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. xeexu mbedd la ñuy xeex. ñi ngi xeex ñi ngi xeex daw nañu jàppante. Caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. ñi ngi téyante. Caatu Lamine Gueye moo moo ngeemul xonk li. rëg rëg bu bees moo ngeem moo ngeemul lu ñuul li teg ci mosu xonk bi Caatu Lamine Gueye bëgg na jàpp léegi mu bañ. téyante. Caatu Lamine Gueye. seddoo nañu jàppante bi ku ne téye na ñaari géeñoo. fa mu yowut sax daa sori génne sa bopp. ko ci sa épaule morom. Caatu ay da Njaay ngi way moo nga Adja Ndiku. Caatu Lamine Gueye rëg-rëg bu bees. ngi téyante. est-ce que rëg-rëg daa am. wa boobu téye na ba mu dëgër waaye dara amagul. Eh, rëgg wañ na ko mu rëbb delloo si ko daan daan na ko rëgg daan na caatu Lamine Gueye yàgg na da koo biij plaqué ko mu jaaxaan. rëgg bu bees daan na ko. arbi sifflé na ah Bathie Sarr dina waaye dalul. Bathie Sarr Thiès ak waaw ah, remise na ko de remise bu dal. Bathie Sarr Thiès waaw lu mu ngémboo nii. Bathie Sarr Thiès waaw waaw moo gën taxawaay. xoolal ma Bathie Sarr Thiès ak. Bathie Sarr Thiès ak Kool. Eh, Bathie Sarr Thiès moom moo. sànniwaat na léegi daw na yooru loolu du songuwaay ah. mooy songee di gàll sa loxo ci kaw. waaw loolu ñorul door nañ ko hypercute. Eh, mais koo la ëpp caay-caay xale bi bëggatul ci affaire bi dara yooru na xëy na bu jàppee bëre mais du bagarreur bàcc saa Thiès door nañ ko kubu dal leen baaxul bàkkalu du la door nga daanu du xeexkat jéema la mbapat bàcc saa na ko kubu dal léegi daw na yooru kor na ko ñu ngi xeex bàcc sa Thiès kool doon na ko uppercut bu dal ñu ngi téyante yooru na téye geño yooru na téye geño bàcc na bàcc junior ak kalu bàcc téye mais ñaari loxo la ma koy jéem a ma ngay dajale. ñu ngi TNT. nañu. wàcc Sa léegi téyewul Kool moo téye benn loxo éliminé avant bras bi mu ngi koy ëñ mais nanguwul ngi téyante doon na di ko bët ngi téyante Eh, baaxul ko rëb mu delloosi di ko wañ roof na ko galgal roof na ko galgal taf na ko di ko delloosi delloosi na ko wañ na ko daan na ko. bàcc saa Thiès daan na ko daan na ko bi ak jëmm ji est-ce naa ko te Touba Dakar. ba ma koy jël entraîné chaque maa ko daan maa ko njëkk a daan. kon tur jaaxal ma bés bi jaaxal ma mënu ma. sa digganteeg moom amoon leen loo ci laam laam. yàlla moo ma tibb amu ma leen lu ma ciy xalaat si moom dama gëm na man damay dem sama yoon du moo may téye xale laa dama war a dem. dama déggoon nga am benn wax booy wax ne lépp am nga ko doole moo la manqué woon te fi ni mën a gisee nii moom macha allah. mais xam la ma ma jaaxal lan moo tax wax yooyu mbër bu may bëree rek da ngay faral di ko dee ci noppam ndeysaan mbër mu may bérél da nga koy faral di ko dee jooju lan moo tax lool. non mais ci yow la jóge waaw mais da nga koy junj yeneen mbëri mais ñoom duñ ci bàyyi xel. dégg kon jot nañu bàyyi xel. déggoo ma de. maa ngi lay dégg déggoo ma de déggoo ma nag voilà. waxaat ko kon. dama ne la pourquoi ça mbër mu may bëreel man yow nga dem ci seeti ko di nga ne que Ronaldinho leneen lañ doon xaar moom muy doole te wuti na mais mbëri yow boo leen koy def ñoom ci bàyyi xel. waaw après la ñu comprendre. waaw après la ñu comprendre. lan ngay wax Boy Dakar. waaw Boy Dakar adversaire la nag kon adversaire yi te ku ñu respecté la ku ñu jox cër la parce que dafa wane ay information yu doy yoo xam ne làmb suñu génération kenn mënu ko bañ comme ci bañu mënoo ko bañ macha allah mbër la def na ay qualité wane na ko làmb moo ñu boole. tëkkuwuma ko moom tëkkuwuma. làmb moo ñu boole ñu war a bëre te incha allah ci kàttanu yàlla bu bees ba tamit dama koy daan. kon jub yéen ñaar ñëpp kenn du si xeexkat. yéen ñaar ñëpp ay bëree kan ngeen. est que loolu amateurs yi yaakaar bu ñëwee sur stade nañ ko si gis. waaw Dior man li may wax rek mooy na mbër bi taxaw dëggal boppam ci loolu. waaw waaw ñu wéccee taxaw dëggal sa bopp ma dugal la incha allah ci kattanu yàlla xam nga lay xalaat ñu ñëw forot ah, waaw ñibbi waaw te lamb léegi daa am forot te ñu ci xel forot daa am léegi si lamb ji te gars yi bàyyi ñu ci xel mooy dañuy jël ngembay indi ko si dënn bi loolu forot la melul noonu moom ngembam dafa yem di la bëggee wér a wér a wér di féliciter am na kii sam ku si ñëw bëree man ngemb normal ñu bëree wéccee bëree xam na si kattanu yàlla damay yàgg wax benn wax mbëru tëngee ji bi mooy doo combat de victoire ren joxuñ la seen tarian sax na ñaari soog daal di xale yoo xam ne dañoo yàlla yàlla may ndam yi kanam rafet lool barke maam Seera Baal ndax ka ma ko liggéey la waaw combat du combat bii de la du combat bii waaw du ko ñaan yàlla ko ndam li jik na xale la mi ngi daal mais daay lamb yaa koy yëngal dañoo tëwoon lamb lamb man damay dem. damay dem damaa dem. war naa ci woo damay dem ah, damaa dem. ah lu tax nga bëgg lu métti mais man dama war a dem. incha allah si kàttanu yàlla. si la si la làmb yëpp ñoo jaral. booy bi booy bi laa la wax parce que bokkul bàyyi day voyage incha allah rabi du préparé fii combat bi. yàlla baax na barke alxuraan kan damuy dem dinaa leen oo yéen ñëpp ñu ko aéroport incha allah bu soobee yàlla làmb yëpp ñoo jaral. dina tàngoor man na ma pare tabaski nga kon baax na ci billaay mais nawet dara. waaw da nga soog ñu barke yàlla amul seen barke yàlla yàlla rek moo leen mën a fay di sant sama gars yi. jaabee laa ma ñu di soog. dëggu ma leen ni dëggu moo daj. ragal dëggu fa. merci Diagne. moom mooy ki nga xamante ne tey nag tey nag am nga combat. waaw ah, lii du dossier lii du dossier du dossier. waxee dossier. man lii du dossier lii du dossier. teg soog laa wax. man du bu yàgg. ari baaxul baax daanaan la de. waaw daanaan la mën na ko bopp. bu ko xoolee tirfi lamb ji incha allah. loo wax yow. barke alxuraan bu ko jàppee lamb moo gën a moo mën moo bu doole. teg soog daanaan adversaire am booy du ñu adversaire ba ko ponkal jël mu bëre. teg soog daanaan la ban daanaan képp ku nekk daanaan fuuf. kii dëkk moo dox ci ginnaaw montagne raay ba c'est bental ñoo topp ci ginnaawam man da nekk ragal bu ragalee ma koy rendi bare naa man du la fu sama ko ñu koy wax muy laaj yenn kase na wàññi kase yi ñu bëre man xale laa dëkk topp sama na wàññi kase bi ñu bëre barki alxuraan bu ko wàññee ko mbaay du taxaw suba Assane moo ko bëgg mois de décembre la bëgg mais lim la aj na ko wàññi lamb yi amatul ay palmarès bé bis na waa ji bëri si bu ngor lamb waa ji bëri ak fu na waa bu ma doon si gaaw ma bëre Ama yombal la waree caatu guy gi waree lamsaar. combat bi dox ci diggante Ziz Ama moo yor ngemb lu ñuul li ak ki nga xamante ni ni mooy caatu guy gi Ziz Ama moo xa a xees ñu ngi lay ngemb lu ñuul li caatu guy gi moo ñuul ngemboo ngembal naat bi ñu ngi lay waatoo ñoom ñaar yaa ngay lay waatoo Ziz Ama caatu guy gi caatu guy gi ngi seetal seere lampataake ñu ngi lay siis Ama Caatu gi siis Ama wax na ak ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo Ziz Ama Caatu Guy gi ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar dëgg la yàlla bëgg waane combat bi Ziz Ama Caatu Guy Ziz ah, Ama Caatu Guy dañu damante baram tàggoo mu nekk septième combat de la soirée mais yooru na xeex na door ko remis. caat guy gi ah caat guy gi ñamal na ko de. Ziz ko coup bu mu door ko remis. caat guy gi. daa déclenché dem. Ziz la tekk ñu ngi lay atoo dara ñu ngi leewaatoo ah, daal délégation yaa gis naa am ñu ngi leewaatoo demee na ñëwet baa ngi wax ak ñoom Ziz am na benn avertissement ku ne jël avertissement arbitre sifflé waat na Ziz Ama Thiatou Gouy Zizama Zizama Caatu Guy ak Caatu moom daa mel day ba tey. demee nañu wet ñoom ñaar. men. fees. waaw dajee am. Zizama ak Caatu Guy gi demee wet ñoom ñaar. Ama Caatu gi. ñu di demee ngi leewaatoo. Ama daa mel ni ku na waaye dalul dafa sori. waaye Caatu daa toog ci ay tànkam. ñu ngi leewaatoo Ama Caatu ñu ngi lay waatoo ndeysaan ñuy waye ngi way lambi ambiance Ciss Ama Caatu Guy gi ñu ngi lay waatoo xale yi seen la waatoo bi yàgg na ñu ngi lay ato lewaatoo benn loxo tànk bi ñu teg moo leen jaaxal ñoom ñaar ñëpp fausse garde la ak garde ku ne am na ñaari avertissement ndeysaan sànni na dafa sori ndeysaan du dee ay kati lay way ay dut sek kooku mooy Demba Sy borom gile ndeysaan ñu ngi lay aatoo arbitre wax na ak ñoom ne leen bëre leen yooru na xeex nañu door na ko kubu dal daw na taru ko sentere na ko taf na ko tëgg na ko mboot mu jéggi sentere na ko téyante nañu roof na ko galgal ñu ngi téyante sentere na ko taf na ko delloosi ko ma nga ca wet ga delloo si na ko dóor ci jël bi rëy na daan na ko jël bu jël bi February. Keweul nuyu naa la. maa lay fay. naka nga ñëwee. comme ni ma daa ñëwee rek. sa digganteeg Tidiane Faye tey lan nga ci naan xeex wala bëgg. lu mu la ma def loolu. Ah. waaw. waaw Tidiane Faye a ngi noonu Tidiane nuyu naa. jaar nañ jaar nañ. ci loone bu baax. tey eh, li nga tuus neex na de. waaw dañuy rek. gaay yi la rek gaay yi gaay yi waaw. tey naka nga ñëwee ak yéen si ngoom dafa mel sa xel dafa rek. Ah. waaw sant yàlla rek ngay xool nii. waa ji laay xool waa ji. est-ce que yaa ngi koy gis. waaw maa ngi gis bu baax a baax. Ah. waaw waaw. mais tey naka nga ñëwee xeex wala bëri wala lan. ñaan yàlla may ñu ndam rek. si Tidiane mën nañu xaar moom xeex. ñaan yàlla bu may ñu ndam rek loolu moo ñu yollu naka nuyu naa. dëgg naa la gars yi. ñëw gis ngeen andi seen grand naka ngeen ko andi. li ñu koy indee mooy ndam rek lépp li ñu si war a def def nañ ko si. waaw lépp li war si làmb ji nekk nañ si di ñaan suñu borom yàlla ñu yàlla suturaal defal ñu ndam bu set wicc. foo fi ma toll gars yi ngi wa xam naa feegi fan rek léegi nga dégg mu taxaw. kon baax na dëgg naa la. Quench nuyu la. fay naa la. borom Tëngéej. borom Bargny. borom Bargny. Ah. tey ndax ngeen andee seen mag. waay Tidiane de ñu ngi indee ndam rek ah. Ah. nuyu naa lay fay bu baax a baax. ci loolu sant bu baax. sa combat ba léegi kenn xamul ci lan la nekk kenn gisu ko fenn lu waral loolu. waaw dafa laakatu rek di entraînement rek comme def naa erreur war a amaat combat bañ a defaat ma defoon waaw. da laa def waaw erreur laa def parce que ku daan pour man ku daan da ngaa def erreur moo tax nga war a entraînement waat pour retrouver sa erreur waaw. ban erreur non xam naa préparation ma préparé moo des. parce que combat boo xam dañ ko daaj dañ ngay préparé muy yàqu ngay préparé muy yàqu ngay dem ba dootoo yore si dara mooy loolu yaa ma gën a xam. da nga jeexal ci xaalis. non da nga jeexal wala non jeexal mi ko waaw. mais ñu la yaa ngi toog di xaar fan la sa adversaire ñu jox adversaire bu ko jar ñu ñu noonu ñan ñoo si adversaire ci làmb ñan la la promoteur yi di wax. ñu ngi toog di xaar ah. ñu ngi toog di xaar. comme est loolu tamit du la tardé tamit. waaw la rek làmb la làmb moom benn combat boo xam ne yóbbuwaat na la fi nga nekkoon. làmb noonu lay doxee quoi parce que làmb léegi waxul dëgg. diggante Gora Sock ak Fils la combat bu neex la. non bu tase sa diggante waa ak ñoom. non loolu ay combat la man man mosu ñoo bañ combat. Ah. ñoom mosu ñoo bañ combat combat koo jël mais tey comme suñu doomu ndey la ñu wax ne Tidiane Faye ñu ngi koy ñaan yàlla ko yàlla may parce que boo xoolee moom li mooy la professeur te Lamsar daanaka moom mooy suñu mag ñun ñëpp fu mu ñuy teg rek la ñuy tegu di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may ndam mm, kontaan naa ñëw jaay waa far fay nañ la. maa ngi nii sant yàlla bu wér. tey naka nga ñëwee. waaw tey dama ànd ak sama mbokk rek waa benn barak Malika yëmbal Lagrosse Kër Bala Fanok waaw ñu gunge ma ci bés bi quoi waaw. booy bi de nee na fu mu la jàpp nga daal. waaw yaakaar naa ne làmb ji bu jeexee ñooy dugg waaw ci kanam tuuti na leer incha allahu rabbi. waaw da ngay xeex wala da ngay bëri. lépp andi bàyyi dara lu la ma laaj dama koy def dama koy def dama koy joxe. Ah. waaw dama koy joxe quoi parce que bëgg naa bés bi bëgg naa bëre am. waaw moom na dëggal boppam rek lu mu moom lu mu entraîné lu mu wax na ko appliqué bu appliqué suñu combat mooy gën a neex ci combat yëpp waaw te bëgg naa mu neex incha allah. kon baax na bonne bu bëggee sa stade nga tëgg ko amul fees da ngay tëgg combat jàng xale ak xale xamul lu mu doon xaw ma la xoolal xoolal ba mu teg ca tànk ya am na beneen ba mu teg ca tànk ya ca kanam nga cey làmb làmb daal lépp aar la Samba Lawbe les quoi mais xaar mais est-ce que nekkul yi ñuy yett wax nga boo demee yee ñu yett la lii aar la waaw waaw Lawbe la Lawbe ci mbir ci man amuñu waaw waaw kuy xalam di sa xoola xoolama tubaab yooyu sax lañuy foto eh Samba Laobé daal tey andi aar andi cosaan. non man may seetaan man li ma wax sànq laa koy bi ma blessé dafa wax wax bu rafet man wax bu rafet laa wax di ko ñaanal yàlla jàmm. mais tey waroon na ñëw ñu neexal làmb ji loolu noonu. Samba noonu. abi baa ngi wax ak ñaari mbéy. Samba Samba Laobé Ama Samba Laobé ko sëkkatal taxaw na Samba Laobé ñu Ama moo jàkkaarloog ñun demee nañu wet ñoom ñaar Samba Laobé mu takk Samba Lawbe ak Bébé Ama Samba Lawbe Bébé Ama Samba Lawbe doo daje Bébé na ko rasu rëcc Samba Lawbe lu mu ba bàyyi Bébé Ama jekkoon na Samba Lawbe rasu rëcc Samba Lawbe Bébé Ama téete nañu mi ngi dóor Samba Lawbe ngay dóor Bébé Ama ak Samba Lawbe Samba Lawbe ngi dóor Bébé Ama fayu dóor fayu Samba Lawbe ngi téyante Samba Lawbe Bébé Ama Samba Lawbe ak Bébé Ama jàppante nañu ñoom ngi téyante Samba Laobé ak Bébé Ama eh Bébé Ama door lee kuubu dal ñu ngi téyante Bébé Ama Samba Laobé Samba Laobé ak Bébé Ama Samba Laobé Bébé Ama ñu ngi téyante Samba Laobé fàq na ko fàq na ko fàq na ko delloo si ko mbaar ko rëb. Samba Laobé Ama fàq na ko lonku laa takk na ko waaye lu mu def bébé Ama dégg nga taf na ko da koy caxabal. ëñ na ko tëgg na ko mboot mu bañ delloo na ko Samba Laobé da da koy daan na ko. lan moo xew lan moo daan na ko. nañu déglu arbitre yi Samba Laobé daan na ko. Samba Laobé daan ko jël bi rëy na. Samba Laobé daan na Bébé Ama. bërëkkat la. Cheikh naa la. waaw bisimilah rahmaani rahiim maa leen di fay bu baax a baax a baax doom day di nuyu say caméraman di nuyu sama gaay ah di nuyu tamit sama doom day réparé di ko ne décourage bu amaatee combat yàlla na ko suñu borom defal ndam di nuyu sama grand am lycée di sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent di ñaanal sama papa Mor Faram fa mu nekk gënal ko fi mu jugee sama papa Baye di Seye aussi noonu di ñaanal tamit sama papa président yàlla bàyyi ko fi bu baax la si man di nuyu Ousseynou aussi di leen nuyu bu baax a baax. tey ñu gis nga woon bëri ci journée bi lan moo waral sa ñàkk bëri tey. waaw man de pare naa Assane Ndiaye jox na ma avance bu mot sëkk pare naa daanaka dans trois jours xaw ma moins trois jour lañ ma woo ma sa adversaire daa blessé. ñu dafa blessé. daa blessé loolu laa si am. kese. kese mais nag man nekkuma pour Boy Seye kese man moom instant yi ponkal yi laa bëgg a bëreel que tamit préparé sa làmb liggéey yow lu mat deux mois ñu bàyyi ba ñu la suba la comme am ay trois jours xaw ma quatre jours ñu ne la sam adversaire daa neexul waaw ak waaj combat ni mu méttee mën naa ne la jour combat méttiwul mais waaj bee gën a métti looy tamit dañ ko koy nangul rek waaw di ko yàlla may ko tan mais man instant bi maa ngi si leneen. da a bëre ci combat ñu bëre. wala Gamou gay na ñëw ñu bëre amuñu combat bàyyi rek la ñuy bëreel nañ ñëw bëre ñun xale yi lamb léegi tollatul foofu noonu ay bëre ay mag déedéet ñun xale yi nañ bëre suñu biir feesal stade bi boo fi tëggee combat jank stade bi day fees mais boo jëlee benn booy boo lekk ak benn paa doo am dara ñoom nañ ñëw ñu bëre suñ bërewul léegi dañuy bëre ci kanam te ci kanam day gën a métti ci ñoom kon nañ teel a ñëw moo gën pam doy yóbbul nañ ko sama avance trois fois na ñëw ñu bëre ñaanu ma ko sens na ñëw ñu bëre man maa bëre def sama preuve wane samay preuve 15 combats laa bëre bëre ma benn combat bu nooy ñi ma daan ñëpp a ngi bëre ay Giro Seras laa daan ay Mamor Ziza Scorpion ay Ndaanaan laa daan ay Boyzil ay Sabala te ñi ma daan ñëpp bi ma leen daan amaguñ defet daanaka waaw. kon fi ay ñoom buusin nañ ñoom may la chance foofu laa ko teg sama. lii laa la wax man du ma bëre teg sama benn morom sama samay morom kenn laa si bëreel xanaa Bulldozer nekkul dama koy tëkku. moom laa la wax laay bëre samay morom mais bu su ma bëreewul ak moom samay ponkal yi lañ ñëw may ma sens wala ñoom ñu ñëw ma may leen sens waaw. loolu leer na kaay ci ne. waaw sant sant sant sant. mais keroog kenn xàmmeewul. waaw lamb la lamb la ah lamb la rek lamb mooy demee noonu. waaw ànd samay mbokk ñëpp ñëw si lamb ji. yàlla juro moo àndul ak man ànd ak sama adversaire moo ñaan na. adversaire ëpp la doole. non wallaahi lazim lamb jooju daa ci ëpp doole. barke waaye soo waree daanu nag kenn mënu ci dara waaw yàlla na ko ndam lu jig léegi foo jëm na nga taxaw xaar. non taxaw ma ne xaar ma maa ngi toog rek. ku ma làmb boole par exemple bu bëre moom waaw. am lii sax nuyu naa la. maa ngi lay fay. di nga daane wuli ba léegi kenn ñu bëri liis ñaaw ñu ñu na yow ñu moo gën muy wiir nag naan ay déwén laay bëre ginnaaw déwén laay bëre na ñu bëri ma ak moom ay morom la ñu neexal ko quoi moo gën mu wër paay na ñëw ñu bëri ma ak Liss daal nga bëgg a bëreel. Liss laa bëgg a bëreel Liss mooy sama morom ci làmb ñoo tolloo doole ñoo tolloo bëre ñoo tolloo lépp ñaan ma ko sax dañoo ñu bëre Liss yow laay waxal kaa ñu bëre tàppet nga. baax na kon. ok jaayef. fay ci loone sant yàlla bu baax. daa mel ni ambulance bi nga doon a bëreel fi mu toll nii gars yi baax di ñaan yàlla yàlla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 bëtu radoom laay kuule. nee na maa duma. nit mënu maa duma si làmb ndax sama la moom box yaa ngi dégg maa duma si làmb. waaw woo waa Géejawaay bépp bépp Géejawaay combat bi waa Géejawaay la ñu ñëw ma yàlla may ma ndam si ko ambulance. xam nga fi nga jëm. koy may. jom fula fayda ak gañe waaw. dañoo far. mais combat ah? samay mbokk rek sama papa daal tegal na ma lépp nee ma entraînement la ma sant lekk ba suur tëdd nelaw sant ma leneen waaw. est-ce que di xeex ah? bu laajee xeex ma xeex bu laajee bëri ma bëri lu laaj ma def ko incha allah ah. waaw. kon baax na. waaw fay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 voilà lan nga ko yóbbante. nee ko mu entraîné lu mu entraîné rek doyul. di wax nag waa Jokalante am naa combat. état bi mu am nii da nga koo xeeb. dëgg la ma gis nii ci Youssou Ndour lu mu entraîné doyul bu ma simee ko mu réer lu ma entraîné doyul. kon bonne chance. naa la. naa la gërëm naa la. te la ma sa teewaay fii. waaw dama ñëwoon jàkkaarloog sama adversaire. waaw di ñaan yàlla suñu jàppee bés yàlla sottil ko yàlla may ma ndam. lan moo waral Ronaldinho. Ronaldinho ñax adversaire adversaire yu bëri ñemewuñ ma quoi loolu moo tax ma jël ko na nag maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla wér gu yaram bis ma ñëw ma daan ko jël bu gaaw. nee na nag da nga koo jël ba noppi mais xamuloo xamuloo ko yow. déggoo ma de man ci biir géew bi lañ may xamee ku ma xamul ku ma ku ma xamul depuis léegi dootoo ma xamat te bis ba suñu jàppee bis ci biir géew bi lañ may xamee. dafa am benn wax bu mu waxoon ne Ronaldinho am na lépp mais doole la manqué mais léegi am na doole mais nee na saa bu ma ko waxee adversaire am du ci bàyyi xel mais saa bu bëree ñoom ba noppi ci la ñu xam lan li wax ji lan lay teg. Balla Gaye mosoon na wax Modou Lo topp na ma ay at pour ñu bëre man kii dafa maa topp at pour ñu bëre yàlla dogal na suñu combat su bis ba nañ ko leeral si diggante bi. moom moo bëgg a bëre a man combat bi leer na laaj na ma média yëpp combat bi leer na léegi yàlla na ma yàlla may ndam si kawam. mais est-ce mu tax mu bëgg a bëre ak yow. ma man su biir géew kenn du gis sama faay te ñaanuma yàlla am faay wallaahi dama koy daan si kattanu yàlla ak yonent bi. nga bañ a waat. maa ko dama koy daan waaw. arbitre ne ma dal ci kawam jàpp ko daan ko. nee na ñetti fan moo fi dese dafay voyage gën a yokki doole. déggoo ma na dem kirikoro man maa ngi fii nii NCB gars yi di ma toppatoo di ma jox may lekk ba suur waaw naanu ma dara nag naturel rek toujours naturel wow koŋ wur na yàlla. loo koy wax. di ko ñaanal rek. yàlla may ma ndam si kawam waaw amul leneen di gërëm sama gars yëpp mafia ala cadar bi billaay waaw maa ngi woo waa Casamance waa Kaolack waa Kër Madiabel Lamaram Panna Sadir Ndiawar Alkaar Sanju Ba Faye Sanju Amad Pa Fall Kor Omar euh, di woo waa Kor Omar Bambara Kor Omar Pël Koylal Moussa ñaar tali yëpp bàyyiwuma kenn booy ñaar tali yëpp waaw mafia sans loi fàttewuma leen benn yoon mafia sobale bu ñorul bi bàyyiwuma leen petit onze waaw sama yaay Ndeye Sall sama yaay Ndeye Sall Diop la jien laa nekkoon moo tax ma xaw a tardé maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax mu jàpp si bu baax waaw monsieur le maire Jean Baptiste Diouf sama papa Djibril Wade Ndiogo ambassade France waaw maa ngi woo ñëpp daal. mais tey ñu def. waaw.

mbokk yi ñaay mbër yaay noonu ci diggi géew bi diggante Tek Choc ak Thiatou Montagne Tek Choc fu mu jëm dafa niin wala lu xew Thiatou Montagne ngi noonu di tekki labataake yi Tek Choc daa niin ñoo ngi koy fomp Tek Choc Thiatou Montagne combat spécial caatu montagne ngi noonu ñuy xool moo ngem moo ngemul xonk li rangoo fas bu xonk bi teg soog caatu montagne teg caatu montagne arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër li nangu ak li làmb bañ te na ay siisam wax nga sifflé Caatu Montagne Tek ko sokkatal moom la du xaar Caatu Montagne bi sifflé rek mu dox ci sa kaw Caatu Montagne Tek Choc moo ñu woon ginnaaw caatu montagne moo jàkkaarloog ñun yor ngembalu xonq li mi ngi ko sëkkatal caatu montagne ngi dox ci kaw Tek Choc caatu montagne door na ko crochet gauche door ko coup bu dal na mu fal ko tëgg na ko mboot ñu seedee jël bi caatu montagne ndànk takk na ko da ko a tegas ko sukar bi ko taam ko ko caatu montagne daan na ko da ko sentir ko tam ko sukar bi ko doole Caatu Montagne Caatu Montagne daan na teg Caatu Montagne daan na teg choc Caatu Montagne ngi noonu dem na yëkkati ko. mayu ko dara da koo imposé. taxaw. Tidiane Faye ak Keweul moo ñu woon ginnaaw. règlement daal la leen wax. mi ngi wax ak ñoom. Habib baa ngi laaj ay jugeem. laaj na kéwén consulté na ay jugeem wax ñaari mbër yi. arbitre sifflé na. journée Assane Ndiaye Baol production dimanche 3 juillet. Tidiane ak Keweul. il est 19 wan ginnaaw. Tidiane Faye la jaakaar lool. ñu ngi kewel lewaatoo na ba mu neex ko mu dagg lewaatoo bi. Tidiane ak Kewel waaye jat noppi na ca. tudd na ko Kewel la woon ginnaaw Tidiane jàkkaarloog ñun. ñoo ngay lewaatoo. Kewel pied gauche. Tidiane Faye lewaatoo. Tidiane Faye si taxaw na di ko xool. Kewel la ngi taxaw di ko xool. ku ne la teg boo ku njëkk a song. Tidiane jiital tànk ndeyjoor. round d'observation. Keweul jiital tànku càmmoñ. Keweul Tidiane Faye. ñu ngi lay waatoo. deme nañu wet ñoom ñaar deme na. Tidiane ak Keweul ay tànkam. Tidiane daanaanu bëre la. ñu ngi lay Kewel Tidiane Faye Tidiane ak Kewel ñu ngi lay ato Kewel Tidiane Faye Tidiane ak Kewel Kewel Tidiane Faye ñu ngi la a ngi taxaw di ko déglu Tidiane dafa bëgg a xeex wala dafa bëgg a dem. ñu ngi la too. wala dafa bëgg a xaa xool lu kéwél andi. arbi nee na leen bëre leen. kéwél wàcc na. Tidiane ak kéwél. kéwél Tidiane Faye. ñu ngi la Diowel Tidiane Faye dimanche 3 juillet fii ci arène nationale Diowel Tidiane Faye ñu ànd ak Baol production Assane na ca bopp ba boppa Abdou Fall ñu ngi lay atoo ñoom ñaar diggante Tidiane Faye ak Diowel boo demee ca cumukaay la danga fay fekk ñoom Abou Ndiassé ñoom Taxe li ko waral mooy Tidiane daa jóge ci ndam bëgg a confirmer Keweul jóge ci défaite te nee na ko tollanti ndax moo gën a doon xale Omer. Tidiane Faye goo xam ne xam ne technicien la bàyyi na ak xale bi euh, combat bi boo gisee mi ngi gën a jegeñ surtout garde à droite bi mu def xale bi def garde à noo ko jàngate. waaw loolu am na solo parce que calcul lay doon parce que Tidiane xeex bu bari bi du avantage am. Keweul it bëgg naa xeex mais du bëgg a juum. waaw tooñ na ko léegi. Keweul door na ko benn arrêt. waaw lamb ji mu am calcul ma. Tidiane am conférence lu tax ñu jël ko professionnel nekk na boo xam te ni tey. Keweul Tidiane Faye. mais bien day jege du a solo. Keweul sànni na ñaari yoon léegi. doo fay too. Kewel Tidiane euh, Faye round bi ci Tidiane parce que distance bi dafa arrangé euh, Kewel parce que distance bi dafa approché à telle enseigne que moom il faut que Tidiane boolu ci ay déplacement mais ni mu taxawee nii arrangé wu ko donc nay déplacé sur un côté bu mën ko loolu nga am na solo ku la sut relonge nga fixé benn place abri bi atteint na avertissement verbal. avertissement verbal loolu mooy bëre leen. arbitre siblewaat na siblewaat na. Tidiane Faye Keweul. ña demee wet. demee nañu wet ñoom ñaar. moo wan ginnaaw Tidiane Faye la nu jàkkaar lool. Keweul pied gauche Tidiane ak Keweul. Keweul Tidiane Faye. ñu ngi lay waatoo. dooranteegu nu jàppanteegu nu. Téweul mët na waaye demul sànni na léegi moom Téweul mimi waat na boog gauche Tidiane Faye Téweul doon na korose gauche dalul Téweul Tidiane Faye tooñ na ko Tidiane Fayu Tidiane cokkaas na léegi waaye dalul. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. na léegi moom Kewel. Kewel Tidiane Faye. Kewel a ma sa tànk yi. Kewel deme nañu wet. Kewel Tidiane Faye. deme nañu wet ñoom ñaar. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. eh sànni na ko crochet droit. door na léegi. sànni ko crochet droit moom Kewel mais dalul Tidiane remise na. Tidiane Faye fayu. Kewel a ko def. Kewel Tidiane Faye léegi. Tidiane ak eh, Kewel Kewel góor si dóor baax na de. Tidiane yooru na génne na ma say tànk. daa di na sàcc ko mu génne ko. eh mais Kewel dóor baax na de. Kewel baax waay. Kewel ngay dóor. dooraat ko léegi arrêt gëdd ko mais waaye Kewel buy dóor ba fàttali say Tidiane daan naanu bëre la Tidiane daan naanu bëre la Tidiane ngi dellu gannaaw. Tidiane ak Keweul waaye demul. waaye Keweul na mu déroulé combat am baax na. Tidiane ak Keweul. sànni waaw Keweul dugal na léegi góos. Keweul Tidiane Faye. eh Keweul door na ko léegi. sorol saapa yi Tidiane nañu Kewel Tidiane Faye teente Kewel na mu xeexe baaxul Kewel Tidiane Faye mu ngi Kewel Tidiane teente nañu ñu ngi TNT Tidiane Faye jàppante nañu. ñu am na ñaari loxo ci ngemb. tiijaan am na ñaari loxo ci ngemb. TNT nañu. lamb calcul la. ñu ngi TNT. Kewel Tidiane ku ci nekk jàpp nga ndengeñ. ak Kewel. ko eh. jëma ëñ Tidiane mépp ca mu jéggi Kewel Tidiane daanaan la looy def lu ne na waaj ñu ngi PNP looy def lu ne na la leer Kewel Tidiane Faye ñu ngi PNP Kewel Tidiane Faye PNP nañu Kewel jàpp na ndengeñ. ñu ngi téyante. jàpp na ndengeñ. mooy xew. Tidiane ak Kewel. Zongale xajoon na fi. ñu ngi téyante. Tidiane ak Kewel. Kewel Tidiane Faye. ñu ngi téyante. ci nekk yaa ngi jàpp di ndengeej di déglu sa morom lu muy def. Tidiane mbëri la daanaan la parce que gisee dafa tëj bëri bi fi ne parce que jàpp bi mu jàpp nii xañ na boobu liggéey. ci nekk yaa ngi jàpp di ndengeej di déglu sa morom lu muy def. Tidiane mbëri la daanaan la parce que gisee dafa tëj bëri bi fi ne nii parce que jàpp bi mu jàpp nii xañ na boobu liggéey donc moom bu mu bàyyi benn yoon parce que boobu li bu tentative bi mu tenté avantage Tidiane la. donc loolu moo war na tey Tidiane bi mu andi tey bu bëri bi donc nii li muy wut yëpp pour Tidiane bàyyi mu génn loxo droitam pour mën a xeex moom. Kewel Tidiane Faye. incha allah ngi. Kewel Tidiane Kewel door na léegi dooyaat na Kewel dooyaat na. Tidiane fàq na ko. Tidiane fàq na ko. taxabal na ko. fàq na ko jokkandaloo ak moom Kewel bañ. xoolal sécurité baa ngi noonu ci digg géew bi ñoo ngi sécuriser arbitre bi Kewel ci digg géew bi Tidiane Faye a ci digg géew bi Mbaye Kewel naka la woon bëree parce que gis nañ mu am quatre avertissement Tidiane Faye di dox ci kawam est ce que nii la war a bëree combat waaw parce que xam nga pied droite ak pied gauche suñuy bëree pied gauche bi bu ëmbee pied droite bi pied droite bi du xeex su ko pied bi bi ëmbee tamit du xeex mais Kewel li mu war a def mooy mu ëmb waa ji di xeex gauche rek day jël coup yi far force parce que ndaama la mënu ko dóor crochet parce que dafa gàtt. te saa ko ëmboo crochet boobu mun la ko dóor mais tant que yéen ngi bëre face à soo nee benn mun na la ñaar mënoo bañ. mais en tant que ni mu amee carte avertissement lan la waroon bëri moom Keweul. waaw mooy li ma wax rek xam nga adversaire bu mel ni Tidiane dafa yeewu dafa yeewu ci bépp côté sooy bëreeg moom da ngay déglu ñi lay wax am na ñoo xam ne li ñu fi mu toll nii li may wax ni ñoom ñi entraîneur bi xamu ko te moom moo ko yore te pourtant fi mu ne nii man bëgg naa jot ci moom mais mënu ma jot ci moom. loolu la rek kon combat bi entraîneur yi ko waroon jeexal. entraîneur bi sax mënu ko jeexal parce que xamul li mu war a bëre. ñoo ko gisandoo mbokk yi. courant bee coupé stade baa ngi nii gis ngeen <laughs> léegi li jibi nee na courant bi coupé wul bi amul courant groupe la ñuy taal essence bi dafa jeex <laughs> essence bee jeex gis ngeen supporter yaa ngay ñibbi amateur yaa ngi génn di ñibbi jibi bu Kewel Info jibi noo noo noo noo noo jàngatee lii ñu toog di di di ci grand combat ba ci biir lamp yi fay. Franc Sokh nii la demee woon. ay 16h 16h la courant coupé fii stade Franc lii moo nekkul yoon Ouzin président Bira Sène mais moo ngi fi gisal na ko boppam. déggoo nii la demee woon. groupe la taal lii c'est pas normal nañu wane dëgg fii groupe mënu fee tenir. essence bi ñu koy jënd chaque jour xanaa kon bu yàggee promoteurs yi ñoom dañuy dee dañuy bàyyi lamb essence ñaata la. dañu mën a dëgg gis nga fii nañ indi courant bi ñu delluwaat affaire yi chinois yi moo gën sénégalais mënul yor dara lu mu yor day yàqu. gis ngeen ñoo ko gisandoo wala boog ñoo ko déggandoo kéw léegi noonu ci diggi géew bi waaye daa mel ni xoolal projecteur yaa ngay tàkk de ma ngay ñëw ndànk-ndànk ma ngay ñëw ndànk-ndànk. courant baa ngay tàkk.

courant ñëw na est-ce que taal ñëw na. courant am na groupe la courant yaa ngi nii di taal xoolal kër yi kër yaa ngi am courant. Euh, kër yi boo gisee ne courant la mais est-ce que stade bu toll nii war nañ koo utiliser di taal ay groupe moo nekkul yoon Ousseyn du yoon stade bi waruñu fa def ay groupe la waroon a jël Ousseyn ñun mënuñoo jël essence boobu dañu war a dëgg. ak fi essence toll ni mu yokkee. waaw dëkk bi fi mu tol dëkk bi ngay wax de dëkk bi. France Kewel tiijaan Faye demee nii jox ko Ousseyn non dafa a jaaxal parce que ak xam nga dañ daan dem stade Iba Mar fa dem Demba Diop jóge fa dem ak fee Léopold Sédar Senghor ñu defal ñu bisu bu toll nii ñëpp naan stade bi ñoo ko moom stade bi suñu stade la mais mënuñu am courant bu doy franc soxu ñu ñëw ba fii courant bi coupé gis nga moo ngi leer ndànk-ndànk moo ñëw ndànk-ndànk xam nga lii lii dafa muslu gàcce la billaa yow Tidiane Faye moo ci trois avertissement Keweul a ngi ci la stratégie la Keweul bëgg wala boog Tidiane Faye bëgg bëree tey lamp yaa ngay benn bennal de bu fay ñoo fay lamp yaa ngay fay. abit atana.